Thank you. suba teel waxu. la de. yaa yaa yaa ngi waaj dara ñëwaat gis nga indiwaat yeneen eh, yeneen boy. non ñooñu fi la la mais Sidi yëngal nga. la la ñooñu fi la la ndànk rek en tout Sidi Afrima lan mën a apporter artiste. loolu bari na loolu bari na merci beaucoup. jaajëf frère. alors gars ni ngeen ko mi ngi noonu Sidi Diop après prestation bi mu doon def war a génn nii def prestation bu am solo ñu ñu bàyyi ko noonu moom Sidi Diop mu ànd ak le président le président du label Subatel. Sidi Diop moo nekk noonu mbokk yi après tournée internationale mu defoon. dañoo ñëw gars yi yëppale la dina song sa fan si. gars yi dañu ko namoon. mais loolu bu demee noonu. mais kon xam nga ni gars yi na mën a njaboot. mais Sidi ana njàpp ana njàpp <laughs> yeah. yeah yeah yeah yeah noonu la ñu def maayo ñoo far frère <laughs> maa raw jaajëf frère isaan gaay gaay Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, je suis avec l'un des grands messieurs de la musique sénégalaise, Baba Hamdy. En plus d'être un grand monsieur de la musique sénégalaise, il a une belle voix aussi. su woyee xol yëpp kontaan mais aussi bu bindee jox artiste xol yëpp kontaan vous souvenez de Myrna de Wally Balago Seck kii moo bégal sénégalais mais frère kontaan naa gisaat la depuis sa album bi nga koy lancé. hôtel Bële. waaw euh, Iris. Iris hôtel. depuis boobu lañ gëj a gisante mais ça fait plaisir gisaat la tout le plaisir est pour moi. je suis très content ravi. Mm. ci présentation bi. et encore merci beaucoup. ah Afrima ñëw Sénégal. Mm-hmm. Euh, ma laaj ko artistes yu bëri ne leen professionnellement parlant lan lay def ci carrière artiste. nga bokk ci ñi ñu nominé ci Afrima. yow en tant que producteur en tant que manager en tant que artiste euh, tontu ci loolu. Euh, ce qu'il faudrait comprendre d'abord mooy que ne bii mooy huitième édition. et que Sénégal mu ngi euh, moo abrité euh, bi nga xam ne bu. dans les pays francophones Sénégal moo ko abrité donc rencontre boobu ngay am ci diggante xam beneen producteur yow nga xamaale beneen chanteur xamaale ba xamaale sax koo xam ne c'est un réalisateur c'est un carnet d'adresse déjà que tu es en train de te faire alors que tu sois artiste ou pas quand tu évolues dans le monde de la culture tu as forcément besoin d'un carnet d'adresse qui est bien fourni alors bu fekkee dañ la nominer nag alors c'est c'est encore beneen beneen beneen bonus parce que dañu ne yow nominé nañ la mooy que ni gars yi mooy bàyyi leen ko xel xam nga nom xam nga nominé rek dafa neex. maanaam c'est comme ñu ne ñii ak ñii ak ñii ak ñii ñooy xëccoo ballon d'or ñu ñu tànn la alors ça fait plaisir mm. alors li may tontu ci loolu rek moom mooy boo dee artiste que tu sois sénégalais mm-hmm. nigérian mm-hmm. ghanéen mm-hmm. que tu sois malien le fait de rencontrer d'autres artistes c'est quelque chose le fait d'être nominé tout simplement c'est encore benn ñaax xaw ma nu ma ko mënee wax ñaax la loolu mooy ah gars yi waaw gars yi mooy teg nañ la ayis soow gënal gën a liggéey alors moi je pense que c'est une chose extraordinaire qui est en train de se passer au Sénégal et c'est le Sénégal qui abrite euh, la huitième édition comme on dit ci fii encore c'est c'est magnifique xam nga yow en tant que kuy yëngatu ci wàllu musique booy dégg ñu naan musique sénégalaise la musique euh, est en train de souffrir mm-hmm. euh, nga gis artiste jógee fi dem def tournée internationale ay musiciens préféré toog bañ a ñëwaat mm-hmm. parce que musique bi fayu leen te boo demee Amérique mm-hmm. wala nga dem bi wala Guinée da ngay gis musicien boo xam ne milliardaire lay doon day am jet privé. Mm. te si musique rek la ko amee. si mm. au Sénégal c' très difficile nga gis artiste bu si génn ci musique am c' est quoi le problème grand baba. Euh, man nag da man nag euh, giseewu ma ko noonu. Mm. Euh, def naa France def naa États-Unis wër naa àdduna def naa Afrique du Sud wër naa quoi. et et je sais que fépp la méttee. aux États-Unis tu vois d' excellents yoo xam ne amuñu fu ñu fanaan. Oh. amuñu fu ñu fanaan. aux États-Unis tu vois d'excellents musiciens yoo xam ne amuñu groupe bu ñu joué aux États-Unis tu vois d'excellents musiciens yoo xam ne ci mbedd bi la ñuy fanaan alors amin loolu gars yi di raconter que tu es bon forcément ci vas être milliardaire loolu ay waxtaanu ay ay ay c'est ça c'est rêvé mm-hmm. ça moom c'est vraiment rêvé tu peux être un bon lutter mm-hmm. Sénégal bëri na ay lutteurs mm-hmm. mais ñëpp mënuñu ci génn bëri na de bon chanteurs mais ñëpp mënuñu ci génn bëri na ay médecins yu bëri mais ñëpp mënuñu ci génn ainsi de suite ainsi de suite le journalisme mm-hmm. les caméramans nous en avons tellement mm-hmm. mais àdduna noonu la mel c'est-à-dire euh, tu verras forcément ñoo xam ne dañ ciy génn ak ñoo xam ne duñ ci génn et et c'est ça la vie mm-hmm. loolu kenn mënu ko changer Euh, bon loolu laa ci mën a wax quoi dama ci bañ a dugal leneen loo xam ne bokkul ak bés bi tey rek xam nga bañ a jàdd quoi. waaw waaw kontaan nañu maa la gën a kontaan merci yàlla na yàlla <laughs>